al ginaaw wara asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, bokki jëlee di bokki taalibe yi nga bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikhul Xadim ñu am mbégte tey lool mbégte mu rëy xol bu ci jëf ju rafet ju sell ju tedd ji nga xam ne euh, Cheikh Abdou Samad moom Cheikh Souhaïbou jëfati na ko tey jii liggéeyale ko maanaam Cheikhul Xadim muy fas wi ñu war di oto bii mu yëkkati jox ko sëriñ bu Bousso imaam jumaay Tuubaa ji mu doon loo xam ne nag koo xam ne nag yàgg naa jëf-jëf ju baax yàgg naa jëf-jëf ju rafet yàgg naa liggéeyal sëriñ Tuubaa itam am xemem te loolu itam ci liggéeyal sëriñ Tuubaa ba mu jaral ko lu nekkam tey jii nag mu defate ko da ko defoon na ko defati ko tey ñu di ko xamal nag ne ci turu jumaay Tuubaa jëpp tàmbalee ko ci imaam yi ak noddukat yi rawatina waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne moom kenn la ci ñoom ñun ngi maas di yëkkat suñu kàddu ak suñu kàddu yu ngërëm jëme ko seeral Cheikh Mouhamadul Mountakha nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba ak bokkam yi mu bokkal Serigne Touba ko ñaanal lii mu jëf ngir Serigne Touba yàlla ko Serigne Touba nangul nangoo itam yàlla na ko ko fulal te na ko xéewale xéewal yoo xam ne lépp lu mu bëggee liggéeyal Serigne Touba dana ko man defe kon ni mu ko bëggee ndax xam nañ ne moom xéwal gu mu mën a am rek ci Sëriñ Tuubaa la delloo koo xam nag loo am ci Sëriñ nga koy delloo taalibe bi yëpp dañoo war a maas ngay am tey man ndax moom kat su dee am tey man fu mu gis ne lii bu ko fa defee mu neex Sëriñ Tuubaa rek dina ko am tey man te yàgg fi lool sëriñ bi daal xol yëpp set na xel yëpp itam dal na yaakaar itam dolliku na ndax xam nañ ne Sëriñ Tuubaa li mu gën a bëgg ku ko ca nekkal njabootam gi ñu ngi xool ña ca ne di leen taxawu seen kéemtalaal kàttan te moom ñi kenn jiitu ko ci kon nag euh, amul lenn lu ñuy wax lu ñuy wax loolu bàyyeekoo ak Sëñ Tuubaa rek waaw yàlla na ko Sëñ Tuubaa nangul boppam te fayal ko boppam te defal ko ci la kaw njortam ci barke Cheikhul Khadim kaddu yi nag maa ngi ko wax waaye waxaale naa ko ñëpp. ñëpp képp ku ñëw jumaa rek ba ci ñi ñoo xam ne dañoo julli seen timis yam ci sax seen xol sedd na ba ñëpp ñaanal nañ ko ñaan yoo xam ne ñaan mënu koo féete kaw kon nag ñaan yooyu yëpp rek yàlla na ko yàlla nangu ci barkeb Sëriñ Tuubaa wassalaamu aleykum wa wa barakaatu